ak garaaw xam nga politique boo jël décision day xool ci Abdoulaye Wade des fois Sénégal jàpp naa ne après Macky Sall Abdoulaye Wade moo fi dàq politique man li ma gëm mooy Sénégal amul Macky Sall moo dàq politique mais bu rombee xam nga am Abdoulaye Wade jàngal Macky Sall politique mm-hmm. mais Abdoulaye Wade Macky Sall ma raw ci politique loolu laa gëm man mais bu Abdoulaye bu Macky Sall jàllee Abdoulaye Wade dàq politique Sénégal. xam nga at ma joxe benn exemple bu ndaw rek tey boo gisee ñu Karim Wade kañ la fi jógee woon deux mille douze. dégg nga ñaari élection yi ñuy tudd Karim Wade ba léegi xamul ak lu ko waral. Hmm. parce que PDS amul woon benn candidat je sais que PDS amoon candidat deux kenn tudd Karim day suulu. ma joxe benn exemple xam nga tey Ousmane Sonko tout le monde mettait Ousmane Sonko Amadou Ba Ousmane Sonko Macky Sall xam nga c'est ça le duo Ousmane Sonko parti au pouvoir Ousmane Sonko. mu nekk benn duo bu am ñoom ñaar Ousmane Sonko di gagné yenn bataille di perte yenn bataille xam nga noonu la demee bi mu ne Bassirou Diomaye Faye mooy plan B en vingt quatre heures liñ tudd Bassirou Diomaye Faye kenn tudd ko Amadou Ba ah, ah, kii ah, kii noonu Ousmane Sonko waaw te mu nekk ci xeex mu en pleine bataille. li ñuy gis maanaam ñoom li ñuy leeral moo ne boo paree ne kii kee nga fi dakar si politique loolu amul ci gis nga kaay ñoom Bassirou Diomaye Faye nekkoon président. ay mbokk moo koy njëkk a xoolal ëpp la jom gënu laa nangam bañ a moo koy njëkk a xoolal. soo saa ah, biir ma ne mënoo nekk fii. non non politique laa lay wax. politique laa lay wax. politique laa lay wax. yow da nga leen bëgg a jaase. non mukk Ousmane Sonko n'a pas le droit de faire ça jiw ko Ousmane da ngay laisser léthargie bu dem noonu nga xam ne loolu jël di sept étages. loolu moo leen di arrangé. déedéet ñu dara arrangé wu ñu non ñu dara arrangé wu ñu ndax militant Macky Sall ah, amoon kii bu ñu woteelu defee élection yi. buy woteel day fekk élection donc ay militant ay militant lañ dara arrangé ci dara arrangé ci Amadou Ba bari na ay militant yoo xam ne ñu ngi ko gëm biir Pastef ay dirigeant Pastef di ko gëm maa wax yow am naa de ak a bëgg a gëm loo maa ngi dégg sekk. ah non ba Ousmane Sonko ak ak Amadou Ba. waaw alors Sénégal xam nañ ko. Ousmane Sonko ma njëkk a xam non Sonko ma gën a xam Amadou Ba man Birima Ndiaye mu ma gën a jé lëm seq ak Amadou Ba la vérité loolu relation xaw ma leen ñoom ñaari euh, Sonko maa njëkk xam Amadou Ba ci li may jàpp Ousmane Sonko dama Ousmane Sonko maa ngi xam bi ma lay bàq ma j'ai connu Ousmane Sonko étudiant. à l'université Gaston français ma fay liggéey donc j'ai connu mais daaw ñu dem lente mais le connais. pour de suuf mën a ay événements suñu xew ma xew Ousmane Sonko à l'époque ok jàll la ba mu xale la ak sa syndicat mhm. mu def mouvement employé de man ma bokk CNTS ñu waa CNTS ñoo ko doon jàppale donc ma xam ko si mouvement syndical ok donc xam naa Ousmane Sonko mais digganteem ak Amadou Ba disons dañoo humainement avant booba booba xa booba Macky Ba xamul ni kuy wax Macky Sall di jiite réew xamul ci àdduna du ma si def politique ñoom ñaar ñuy liggéeyandoo kii doon kilifa Amadou Ba nekk son patron mais ils ont des relations extraordinaires même ba ci famille seen relation yoo xam ne ba ci seen famille yaayu Ousmane Sonko baayu Ousmane Sonko jabari Ousmane Sonko dafa am dafa nekk loolu yàgg loolu boobu du politique jaar yéen de politique. kër xaw ni politique maintenant nag àdduna dox na di dox di dox ba Ousmane Sonko dugg ci politique Amadou dugg ci politique malheureusement ou heureusement bokkuñu fu jëmukaay Amadou Ba gëm na Amadou Ba am Macky Sall ànd ak moom ah, Ousmane Sonko contre na am Macky Sall dem defi politique. mbir mi li nga wax nii yëpp lan lañ ci war a dégg. li ci war a dégg mooy. bëgg nañu wan ne xamante nañ bu yàgg a yàgg. non loolu ñëpp waxuma ko ñoom ñoo koy nettali. waaw xamante nañ bu yàgg a yàgg non soo ko mettre nii en exergue. moom loolu mooy wane ni <laughs> non non loolu loolu c'est pour valider li ma wax ne la tey le seul candidat au Sénégal bu mën a ret bu mën a jaxasaat population sénégalaise parti ñu doon benn Sénégal am jàmm si Amadou Ba. parce que pour wax am sonk du jafe non même rek pour waxtaan ak Sonko du jafe pour waxtaan ak Déthié Fall du jafe pour waxtaan ak euh, Abdou Sou du jafe. pour waxtaan waa APR du jafe mais ku lu moom amul keneen. fan nga teg loolu. mooy li ma la nekk fii eh, eh, non c'est pas parce que xamante na ak Sonko lu yàgg que forcément moom moo war a nekk ku mën a réer. non moom rek moo ko fi mën ak kan keneen ku ñëw noonu day gën a bari Khalifa ta Sonko xuloo naag Khalifa Sall xuloo naag Idriss Seck xuloo naag Karim Wade nu ñuy ànd waxtaan da nga a dégg mu xuloo ak Ba. Khalifa Sall Karim Wade. xoloo nañu ak Macky Sall te ñoo ngi nii. waaw Macky Sall moo tudd non Macky Sall moo tudd suude affaire bi. toog nañu waxtaan non Macky Sall moo tudd suude Macky Sall mu acteur la comme ñoom ñëpp Macky Sall moo tudd créé jàmm. ci politique moom lu mu def preuve preuve preuve bi Macky Sall wootee dialogue kan kii ñëw soo ko ñëw donc Macky Sall moo tudd preuve moo tudd non Macky Sall day dem moo tudd ko mais coo di je parle de l' avenir après 2024 comme li ma woon 2012 2012 bi passé ñëpp ànd autour d'une table jàppale Macky Sall mu dem mu am débat. mais loolu lañ yow loolu xanaa loolu ngay ñaan loolu lay ñaan mu am 2024 que xeex bi am ci réew yëpp après 2024 bu jeex amul ba nekk président ñëpp topp ci ginnaaw ñu defar dëkk bi liggéey Sénégal Sénégal jëm la nation c'est même Ba falu moo gën ci Sonko Bassirou Diomaye falu. Bassirou naa falu tamit. maa la wax li xew dama ne barki alxuraanul karim. Amadou mun na nekk candidat comme Amadou Ba mun na nekk candidat. ku ci nekk ba mu waaw wuyu ma wuyu ma wuyu ma bu ñu demee eh, ñaari eh, poulain eh, ma léegi wax nga ma léegi ma pasteur kii ma fa nekk ndax xam nga xam. ma fa nekk dama ne. avant avant non non wax kenn képp li nga xam ne loolu lañ jot a gis. lii ñu leen di ma lii ñu leen wuyu ma poulain am la du nekk président Macky Sall du que war nañ mën nekk candidat. ñaari mën fan nekk candidat. la. mais laa nekk. parti bi mu nekk dañu la jiñ teg yow kon xam-xamoon ñu teg Pastef. kenn waxul Pastef ni forcément moom lay demee yow xamoo seen stratégie lan ñoom seen biir boo eh, génnee lañu eh, nañ ne lii leen dal xam nañ ko. man waaye loolu bu ma doon la <laughs> non damay posé waale question. ma pare ma wax. li ñu nekk ñoom xam nañ. ñëpp xam nañ ne ñoom xam nañ ci lañ nekk. wala mën mais xanaa ñoom dinañ jóg jël waajal. seen bopp waaw wax la. nangul nga leen lool. la. parti bi ay jógee composé parti autonome bi dañuy comme entreprise comme sans limite sans limite personne lay lu fi baax yi ñu fi liggéey yéen a ko def. lu si bon yi si liggéey lu ko def lu si mbir mi mais mbir mi am mbir mi mbir mi rek la Pastef si taw bi mbir mi rek la boo dee la Pastef dañ lay ji terroriste du Pastef nit ña fay liggéey rek la ñuy wax c'est vrai foofu Pastef tur la mu créé rek ñu ne la ñu yow loolu sa tur diw madame diw mais tur bi la ñuy wax mais yow li bu ñu nee diw def na nangam du tur waa def yow yaa def yow en chair li ñuy ji waa Pastef ñoom jëm Bassirou Diomaye Faye ko ji ñoom ñu dem ñoom ñu tiit ci loolu ba CEDEAO porte plainte ñun demuñ ñoo dem CEDEAO ne wax nañ dëgg dañ leen war a dàq tëj dañ war a tas koo xam ne ñëpp ànd Afrique sax d'accord ñu ne pat nan nga a Bassirou nañ xëy nekk candidat ci la bannière de euh, réew mi wala nangam la daa mën nekk kenn nekk candidat ci képp ku yor membre carte bu seen carte membre Pastef tu nañ ko Ousmane Sonko la ko gën a xam entre nous Ousmane Sonko la gën a xam intellectuel ci télé bi xam ñoo la gën a xam ñun ñëpp xam nañ ni parce que mun am candidat ça tout le monde le sait vraiment xam nga xam naa nañ jàll xam nañ ko quand même ah. <laughs> parce que ñoom ñoo xam seen potum bi. waaw nañ ko mais taxaw nañu nañu il le Sonko le sait. non xam nga. nañu xaar conseil constitutionnel waaw loolu benn nañ xaar loolu benn dama ne maa waxee dama ne dama ne dama ne mënuñoo ji dama ne mënuñoo ji dama ne mënuñoo ji mënu comme si yeneen candidat yi xam man tey mënu ma taxaw fi ne la non non mu ma taxaw fi ne la li leen ji ñoo def mënu ma ko wax wóoruma ba dama ne jiiñ bi ñu leen jiiñ dañ ko ñoom ñoo ko yóbbu Afrique ñu yóbbuñu ko ñoom ñoo ko yóbbu cour CEDEAO cour CEDEAO dëggal ko kon pour sérieux pourquoi consulaire dafa dafa dëggal nii rek ci ay solo ba ay wax dañoon seeni preuve jox cour état indi preuve jox kuur bi cour bi lii yëpp mais ñu wax leen dëgg ñaata yoon dem cour cour jox leen dëgg ñu bañ ñoo jox dëgg ñaata yoon ñun est-ce jox dëgg bari na ñi ñuy tàccu ñoom cour bi lañ yaakaaroon ñoom jour kenn ndikkul ci ñoom di xaar cour bi wala toroxal Sénégal loolu gëmoon donc nga xam ni kon l'affaire est sérieuse dafa sérieux ku nekk APR ku museer carte membre APR doo doo doo mën a nekk candidat toi xam nañ ko ñoom je te jure ñu ay intellectuel la nit toi aussi xam nañ ko. Ah, non xam nañ ko. dañuy politique la mais maanaam politique la ñu ne dañuy politique la xam nañ ko ñoo gën a xam waaye te ku ñu nax mag du nax boppam mag du nax boppam nañ seet leneen ñoom sax xam naa ñu seet leneen. Sonko bu ko leeroon bu defee Bassirou Diomaye Faye bu nekk candidat nekk président du ko tànn maa la ko mbir ma yow mii. waaye doo doo doo dox. da ngay da ngay dalal sa xel. déedéet. ñaata ñaata ñaata nit lañ fa gis yoo xam ne récupéré nañ ay fiches de parrainage. mais loolu waaye loolu politique la rek ñoom ñoom sax dañuy loolu stratégie la ñoo ko wax ñoom ñooy stratégie la ñoo ko non ak xam stratégie la. Ah, toogal kon xaar ba ba ba gis. ma gis beneen beneen beneen ma dégg naa sama jeune frère Dame Mbodj naan wooy wooy am nañ plan troisième quatrième lu ñu ci indi fekk ñu fi nañ dem xam nga daam daam ak Sonko yi maa ngi xam anniversaire Dame Mbodj ñoo bokkoon ba fi ma man maa liggéey loolu maa daam suuf sama kaw G7 E fa la Dame Mbodj dëkkoon moom Omar Sow yal na ko yàlla daam ba ñuy xamante Dame Mbodj on s'est connu trente ans ci j'ai connu daa ba 30 ans ñuy boo liggéey université da ngay ba da xam nit ñi quoi xam nga la mais daam xam ne li nga xam ne xam je connais jërëjëf mën naa xam daam xamul leen daam <laughs> mën naa xam daam boobu. <laughs> Ba naru am adversaire kon. ah si Khalifa adversaire. Euh, ñëpp ñu conseil constitutionnel d'accord da ngeen tànn ñi nga kon président dañuy dëggal ne kon dafay tànn ñi nga xam ne moom la bëgg ñi am doole yow yow mi yow yow non même waaw wuy ma wuy ma waaw wuy ma wuy ma tax tax tax tax yow yi xool wuy ma eh, eh da ngaa dëkk réew ma dëkk réew non même da ngaa dëkk yow mi wuy ma da ngaa dëkk réew ma dëkk réew yow bu ñu doon tànn ñeenti ñi ne ñoo war a gagner 2024 boo tànnee doo juum. non man mënuma xam no waaye bu wax bul gëm loolu yëpp. mënuma xam dama ne yow. mii ngeen xam si appareil politique bi man xaw ma ko. yow mii je dis yow. yow ñeenti nit bu ñu doon ñeenti man man nga taxaw ne président futur président bu élection amee du génn si ñeenti du fa génn xam nañ favori xam nañ pour du may kat sa jël parrainage fii nga ma jël <laughs> comme ni kama jël am na ñoo xam ne dañ ko jël dañ ko def seen kër génn sa wuti jël parrainage bañ ko jël dañ ko def seen kër génn sa xam nga loolu pot day pot ku mën a gagné xam nga la ñi war yi xam ne na ñu ne nekkaana ak sauf erreur sauf extraordinaire xam nga la xam nga ko xam nga ne sauf extraordinaire Idrissa Seck mën na matal parrainage sauf extraordinaire euh, Khalifa Sall man dama xam. non waxagum nga ñett nii. non loolu seen poids non dama leen nangu. Khalifa Sall nee nga. nee nga non xam nga xam nga tey PDS ñu am nombre de député non xam nga tey. ku ngeen ci nar a dolliwaat. déedéet dama la loolu dama nangu leen yàlla melal dama ne sauf extraordinaire xali kii Sonko amoon na parrainage te nekkul député daa juum am erreur loolu may la faut faire attention extraordinaire. day xam ne diw mii diw mii diw mii diw mii am nañ poids bi am nañ charisme bi am nañ doole ju ju juñ mën a jiite réew mi ëllëg wala juñ mën a gagné wala juñ mën a parrainage dana koy nangu rek aussi boo xam newul doo gagné il faut nga mel mais mais boo leen xeebee ñoom ñu gagné la dama nangu leen yàlla melal xam naa ni mën nañu am parrainage mm-hmm. am nañu mooy am parrainage am nañu doole am parrainage am na ñoo xam ne am nañ nombre de par exemple Sonko Ah, ah bu bu ñu ko doon dafa soxla permanence il n'a même pas besoin de cette permanence ci mbedd. itam soxla wala waaw mais xam nga des fois dañuy des fois dañuy bëgg a xañ parrainage bi yeneen. voilà moo ngeen koy def waaye soxla woo leen kan noonu la waaw noonu la c'est comme ça dox yombal sa adversaire Amadou rafetlu na parrainage ci réew mi yëpp jeex na ak gàtt Sénégal Amadou wala seen ko ci parrainage jël na ko <laughs> alors ñu ñëw si tournée économique yi. waaw waaw parce que Amadou Ba tam ñu ko si gis ñu naan premier ministre ñi naan candidat on ne sait pas làq politique derrière li nga xamante ne nii mooy tournée économique boobu mu am possibilité bu demee si yenn gox yi récupérer ay parrainage comme li ngay wax euh, population bi génn àddu ko parallèlement ñoo am ay opposants yoo xamante ni ñoom itam bu ñu bëggee def seeni activité politique yu mel noonu récupérer ay parrainage mu nekk problème si ñoom loolu na la xam nga xam nga tournée bi ñaar la Amadou Ba moo njëkk a génn wër Sénégal def ñaar région def Thiès def la région de Saint-Louis région de la yam mhm. def la région de Saint-Louis def de Thiès dem Tivaouane man fi war dafa def Thiès Tivaouane Mbour man kontaan naa ci résultat yi xam ne baax na ñu jékki-jékki président jóg na day dem tourné ànd ak moom. bon tourné ba moom président. je waaw non naa ni baax na mais am na lu ci d'accord ma lu ma d'accord c'est ça la man am ànd bi ànd président gis naa ci yoo xam ne d'accord naa gis naa ci yoo xam ne naa la mais naa nag li Macky Sall xam xaw ma ko. moom gën a xam politique moom gën a xam la réalité peut-être lu mu def xam lu mu def li mu def. am na lu tax am mais man jàpp mu ni moi qui est sénégalais di militant wu Benno Bokk Yaakaar bëgg a gagné posé na acte xam ne man d'accord ma ci ñi Macky Sall. pas d'accord non non moo ma expliqué yëpp tey politique kilifa la mais d'accord ma ci d'accord lépp d'accord ma tournée économique déjà mu participer si rek baax. non mën na def tournée économique ànd ak Amadou Ba mais boo ànd ak sa candidat am na nu mu war a mel c'est un candidat nga bëgg Sénégal yi wateel ko lu Macky sàll bari bari doole nit ñi wateel deux mille vingt quatre du Macky Sall yi wateel Amadou Ba la ñuy wateel c'est ça la vérité Macky Sall moom bulletin duna ci duna ci du duna ci duna ci yëf yi Amadou Ba fay nekk. dina am ko sopp ñu topp Amadou Ba. waaw mais loolu laa lay expliqué loo sopp sopp man ci sopp Macky Sall laa bokk. man laa bokk ci ñu sopp Macky laa bokk Macky Sall mu def troisième mandat mais bu nekkoon candidat bu may wote mu lay woteel sama carte du ma du ma wote contre Macky hmm. mandat du ma ko ci jàppale bu war a defee aussi maandu mais su ma jógee di wote ji moom lay woteel moom laa gëm ci politique ci wote c'est la vérité ok mais am na lu ma nanguwul lu ma d'accord nanguwuma ko loolu man la concerné mais du ci mbedd bi laa koy waxee. Amadou dafa war a gën a mën a dëggal boppam wala mu may ko espace mu gën a mën a dëggal boppam. yooyu ci la bokk mais daal non ni xam nga mu ko mag bu jàppale kay du baax. waaw non. loolu loolu ko jàppalewul du baax wax ji mooy. ndax da ko war a mën a may espace mu mën a dama leen expliqué dama leen expliqué man li ma wax xamoon na ñeme naa sama sama sama li ma man la engagé li may def lay xamul ni maa ngi def fi émission man du ma tàggu kenn Macky Sall daa mu tàggu laa laaj ko mi ngi dund laaj ko doon Birima Ndiaye bu naan wax dara daan tàggu. Hmm. musuma tàggu Macky Sall ba tàggu Amadou Ba man du kat moom maa am sama bopp su waxee loolu yoon dañ may tëj dama ni président Macky Sall boo àndee sa candidat. nga xam ne kii moom war a jàkkaloo réew mi loo ko bëgg bëgg bëgg bu sa doom rek nga jàngal ko ba am bac loo ko bëgg bëgg bëgg boo ci buntu université nga tax ci buntu bi lu salle de classe doon jàng bu def examen mooy def examen la sam caat wala sa doom boo bëgg loo ko bëgg bëgg bëgg boo dee ba ci buntu salle d'examen di nga taxaw ci buntu bi bàyyi ko dugg ci biir examen hmm. donc nit ki loo ko loo ko loo ko jàppale jàppale jàppale jàppale bi da koy génne wane ko mu man koy mu gën ko wane laa bëgg su ko soxleen président Macky Sall gën a wane Amadou Ba wax nit ñi bu dee ci dëkk wax leen lan moo tax mu tànn ko su fekk ko wax mu demee leneen quoi xam nga wax mais xam nga yow déjà tournée bi li ci ñuy jàpp aujourd'hui yow en tant que lu ñëpp di wax Macky Sall daa mer mhm. lu ñëpp a koy wax non wala amul li tax mu mer di ko diaboliser man gëm naa ni mirul su amee ñàkk am satisfaction ci Euh, ni nga xam ni collaborateur am yi noonu la ñuy euh, ñàkkee fësal bilan waaw man dégg naa ci kàddu yoo xam ne non man dégg naa